alaykoum asalaamaaleykum alaykoum euh, chers internautes di leen di nuyu di len ziar di sant ñep di gërëm ñep di len ndokkel ci wëru koor bi euh, leen wax né bo len sétlo fi ñëwon nañ fi mais biñ fi muju euh amul won dara y avait des briques mais yalla dogal nañu tay avec le client yalla dogal nañu tay avec grâce euh, expertise suñu maçon yu nga xamni ne wax dëgg yàlla macha allah tey jii gis ngeen fondation bi fu mu toll culture fu mu toll donc pratiquement pare nañu 1 50 cinquante yi ba bientôt yee bagage incha allah pour rénovation yeeg yooyu maanaam ñëwoon na pour wax leen manam liggéey bi fu toll euh di wax né yeen ñi nga xamné ne euh, am ngeen yitte bu leen defal bâtiment clôture ak lépp lu jëm ci gros œuvre fondation ak tabax ployer ak lépp lu jëm ci manam immobilier rek mën ngeen def euh, confiance ay FGM immobilier bu ko défé ñu defal leen ko dans les règles de l'art loolu la ñu ñëwoon tay ñi à Bandia euh, xanaa léegi rek après peut-être chef maître Mansour bi dina wax mais xam ne def benn témoignage incha allah leen gërëm di wax ne képp ku ñu soxla rek mën nga contacter numéro bi ci suuf ci teem ah, euh, c'est un mur de clôture boo xam ne moom lañ defar ñu commencé woon ci semaine bu la passé donc moom ngeen di gis nii boo xoolee am nañ ko à hauteur de 1 mètre 40 euh, dañuy defaraat beneen bec de sécurité ci kaw de 15 centimètres comme ça ba mot 1 mètre 50 boo xoolee nii am na un soubassement de 40 centimètres euh, poteau yi tamit décalé na ak soubassement yóbbu de 20 centimètres donc euh, poteau yi day dem 60 euh, centimètres ci suuf door a jógaat ci kaw 1 mètre donc soubassement bi au total day nekk 60 centimètres xool dugal nañu 3 ci biir suuf si daal di yëkkatiwaat 6 bu ñu tegee bëgg de sécurité bi ci kaw léegi dañu am fini 1 mètre 50 donc loolu moo nekk liggéey bi voilà ñu xam naa peut-être nous sommes à 95 pour cent. peut-être suba wala ginnaaw bari incha allah ñu yëg leen waaw comme ni ñu ko commencé woon lépp ah vraiment liggéey bi moom nii la nii la mën a demee ko ndax def nañ ko fulla ak fayda biñ fi ñëw terrain nii la woon quoi. Hmm. mais vraiment def nañ le maximum quoi. yàlla ne ko yàlla motaleeg jàmmaleeg ñu pare si hmm. alhamdulilah rabbil alamin hmm.